ci gàttal Seydou salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar Fall mbokk jàngeen jëf dal leen jàmm bisimilah ci xibaar yi gën a cee fas. Amy Ndiaye ñibbi mi ñu agressé woon foofa ci assemblée nationale tribunal flagrant délit tey la joxe verdict ba. procureur moom li mu bëggoon moo ñu tëj ñaari at ñaari atu prison wala kaso ay député yi di yu PUR di Massata Samb ak mamadu ñan njiit mi nag ma nga ca Tambacounda ni ki dem rafet daal di yegg si ngir visite bu jëm ci wàllu koom-koom fan la foora waaye foofee ba mu fa yegsee njiitu réew mi nag ñu ngi ko doon xaar wala ñu ngi ko fay xaar ci lu bëree bari bokk na bokk na ñu fexe ba lakkarti gox ba wala diwaanu Tambacounda ndax na dafa lakkatu lool Ousmane Sonko di leeral tànnee fam ci fanweeri fan ak benn ci weer wi ñu ne ngir mu amal concert u kasoxol maanaam tëggay boole kiccin euh, ci jamono ji nga xam ne njiitu réew mi ngay wax ak askan wi moom mi jiite Pastef ne jaru ko jarul sax ñu déglu koo xam ne daanaka joxul cër doomu sénégalais yi tey laam at ba ñu tegee TER bi di saxaar di train bi nga xam ne wala saxaar si nga xam ne courant moom moo koy dawal di teer tey laam at waaye nag ñii di dawal dawalkatu taxi moom ne ñoom la gën a sonal li moo gën a fa ci xibaar ci technique bi Abdoulaye Diop Yacine Pi moo fa ci euh, digital bi asalaamaaleykum. Seydou Nourou dal leen jàmm ci rajo bi ngeen taamu RFM député yi di masata Samb ak Mamadou Niang tey la xam fi ñu féete ci talaata bi. tribunal flagrant délit euh, dafay joxe tey verdict ba ci mbir boobe nga xam moom moo boole euh, moom mi di parlementaire di Amy Ndiaye Gniby ak ñaari député yi ñoom nag euh, jotoon nañu sax gis ak tribunal ci weer wi ñu ne ñu doon nag tontu ci li nga xam ne mooy ay dóor ci ab soxna soxna daal daanaka dafa wan na lor waaye tamit ñu koy menacé de mort. mu ngi amoon nag foofe ci assemblée nationale ci session budgétaire parquet nag lu mu bëgg moo ñu tëj ñaari atu kaso ñoom ñaari député yu pur yooyee ba tey buñ ñu desee ci wàllu yoon tey la ñu ubbi euh, session bu mujj ci atub 2022 ca chambre criminelle bu tribunal grande instance bu Diourbel fukki mbir ak juróom-ñett lañ fa war a waxtaanee Alimatou sar moo ñu koy leeral. ak RFM kumpa jeex na. Alimatu Sarr dinañ ci ñëwaat léegi Abdoulaye bu élément bi yembe nag ñu waxtaane li nga xam ne mooy ba tey euh, ci wàllu yoon euh, foofe ca Diourbel élément bi yegsi na bile session dinañ ko tàmbali ci mardi ji 27 fii ci Diourbel mbir mi nag ñu nar cee àtte lu toll ci fanweer juróom-benni doomi aadama ñu mën cee jàpp rek benn jigéen bu ñuy woowee kaa Sow moom nag liñ koy toppee maanaam ay dóor yu ànd ak gaañ-gaañ yoo xamante ni moo ko tey daal di koy teg rek ci kaw beneenub jigéen ba mu amee ci ab laago ndaw soose uh, turam di MT Dieng mbir yi nga xamante ni moom moo laalee ci wàllu mërs ñi ngi kiy topp uh, juróomi doomi aadama aju ci mbir yile ñu mën cee jàpp wàllum viol maanaam sàkkuteef wàllum pédophilie détournement de mineur ak tentative de viol yeneen accusé yi ci des ñoom ñi ngi leen di toppee ay ñaawteef daal di àndandoo maanaam association de malfaiteurs wàllum trafic yore chanvre indien maanaam yamba vol en réunion bu ñu amal ab guddi ay violence daal di ci yore ay ngandaay sàccum bétail daal di yore ab oto naka noonu ay ngandaay itam ba ci mbir yooyee mën nañ ci cee jàpp lii di blanchiment de capitaux wàllum viol ak pédophilie Diourbel Alimatou Sarr rajo Futur Média. junjoon naa ko ci bopp xibaar yi njiitu réew mi nag ma nga ca Tambacounda ni kii dem la fa daal di yegg si moom mi di Macky Sall nag mu war fa amal ab visite ci wàllu koom-koom diiru ñeenti fan lay am ca diwaan Tambacounda bëri na nag liñ fay waajal la ci mel ni conseil des ministres décentralisé waaye nag foofee askan wi ñoom. ñu ngi xaar président Macky Sall ci chantier yu bëree bëri bokk na ci nag laqarte seen diwaan googee Abdoulaye Diassine Diallo. bu juróom waxtu tegalee ñaari fukki simili ak benn la avion bu indi woon Macky Sall daa di atterrir ci aéroport bu Tambacounda. bu mu wàccee nag moom président de la république daal dina nuyu autorité civile militaire ak politique yu ñëwoon tersi ko élus territoriaux yi maanaam maire yi ak président de conseil départementaux yi ñoom it jot nañu saafante ak président de la république Kile Sakho kenn la ci ñoom ndax mooy maire bu commune bu jaawara kontaan pour euh, accueillir euh, Macky Sall fii maa ngi xaar euh, le chef de l'état pour vraiment désenclaver département Bakel yëpp surtout suñu yoon Bakel gande Diawara Bondji Moudéri Bondji Bakel Baalu pour mu def désenclavement total arrondissement de Kédiaba bu mu jugee aéroport nag président de la république dafa jubali directement gouvernance bu Tambacounda di ab trajet bu muy def andi ci ak militant yu bëri yu ñëwoon tersiko ci mbooloo bu bëri bi nag la ñu daal di daje ak Mamadou Kassé mi nga xamante ni moo jiite conseil départemental bu Tambacounda. Tamba dafa am loo xamante ne président ko ko taxawal jàppale ñu ci ay route jàppale ñu ci ay lumière waaye nag du tere ci wàllu santé ñi ngi xaar mu def annonce bu baax pour établissement public de santé de niveau trois parce que Tamba nak moo am boobu dayo Macky Sall dina séjourné ci diiru ñeenti fan ci biir région bu Tambacounda ci séjour boobu nag dina fa lancer ay projet waaye tam dina fa inaugurer ay infrastructure présider suba ab conseil présidentiel bu ñu jagleel développement bu région bi waaye tam alarba dina fa présider conseil des ministres décentralisé Abdoulaye Diassine Diallo Tamba radio Futur Média. naka noone la fay présider conseil wala sax bés bu ñu jagleel lii di càmm euh, ci euh, Tambacounda. Euh, lata nag ñu fay yegg si ñii di sàmmkat yi nag di wax seen i jafe-jafe ndax dañ cee lott ci mel ni càccum jur gi foofee ca Tambacounda li nag bëgg moo ñu fexe ba gina dooleel ñii di sàmmkat yi ba ci ay financement jee Diop laata ñoo yegg ci màggal juróom-ñetteelu édition bu journée bi ñu jagleel wàllum élevage taxaw seetlu gi nag dafay jëm ci càmbar ponk yi nga xam ne dañu ko tënkoon ci édition bu 2021 Aliou Dia moo jiite syndicat unique des éleveurs ni bari na lu ñu jàmbatoon ci kanamu kilifa yi te am na yu ci tàmbalee saafarawu ndaxte waxoon nañu pour moderne l'élevage bi ñu ko waxee foofu loolu yàlla def na journée bi bu mu passé gouvernement bi dégagé na xaalis bu bari bu toll ci def na ren vaccination bi passé jur yi gaaw nañu leen ñàkk loolu yëpp avantage la. Mamadou Sow mooy président association nationale pour le développement économique et social des éleveurs du Sénégal ni waaye loolu yëpp nag terewul mu am ay ponk yoo xamante ne des na ci lu ñu war a saafara. financement bi foofu jafe-jafe la boo xam ne bi am nañ ko ñu koy jàmbat pour ñu euh, ñu jàppale ñu jàppal nañ incha allah buñ ci jàppalee tuuti rek eh, danañ mën a demal suñu bopp waxtaane woon nañ ko mais mun na fekk dañ ko fàtte woon xam-xam bi mu ngi yokku élevage ak euh, ministère yi ak tout ça euh, xam nañu ne léegi loolu moom lu mun a saafara loolu daal la ñuy fi mu toll nii nag ñoom éleveurs yi li gën a doon seen i jàmbat bokk na ci kilifa yi wut ay saafara ci lii di code pastoral bi rawatina càccum jur gi éleveurs yi suñu amee code pastoral mooy am nañu moomeel peccikoo bi nekk suñu diggante ak suñu doomu ndey béykat yi loolu de na wàññiku càccum mhm. jur gi demoon nañu boo xam ne boobu amoon na code pénal bu demoon assemblée nationale ñu wote ko si daa promulgué ko mu dem dem ci tribunaux yi ñoo ne ku sàcc jur dañu lay tëj cinq ans à dix ans boo pare nga fay borom jur gi loolu la ñu waxoon mais boo mujj boo léegi moo ngi mel ne affaire bi dafa sooxee bu baax a baax. fi mu toll nii nag acteurs yi nekkee ci secteur bu élevage bi ñoo ngi ci wàccaay wu metti ngir nag mën a waat ak kilifa yu Sénégal bu ko defee nag ñu gën a mën a wut ay pexe yu mën a suqali secteur bu élevage bi ci juróom-ñetteelub édition bi war a am ca Tambacounda ci teewaayu njiitu réew mi. tournée boobu nga xam ne njiitu réew mi ngi ci Tambacounda am na njeexital ndax lu ëpp juróom-ñetti téeméeri juróom fukk cent cinquante millions suñu koppar la ñu financé jox koy groupement d' intérêt économique yëngu ci yenn euh, ci yenn euh, yu ci mel ni banaana jën ak yeneen délégation général entrepreneuriat rapide nag euh, jox na yooyu les fonds ñi ko yellool ngir daal ñu fexe ba taxawu leen jàppale leen ci li liggéey cérémonie de remise de financement yi nag am na ci ba ñu ubbi juróom-ñaareelu guichet unique ngir daal di formaliser bépp entreprise foofee ca Tambacounda ñu déglu ka jiite DER docteur Mame Abi Seye ci téléphone beeg ndongo ka activité bu njëkk bi ci Tamba ñu inauguré septième guichet unique de formalisation des entreprises loolu mooy guichet bi nga xamante ni képp ku bëgg ubbi sa structure boo ñëwee

hauteur u soixante seize millions à peu tamit beneen projet boo xamante ni tamit tey def nañu remise financement symbolique bi ay groupement wu jeunes la ñuy yëngu ci affaire vulcanisateur jàppale leen pour moderniser secteur boobu tamit jàppale leen ci pneu yi jàppale leen ci équipement yi ak aménager seen espace yi accordé nañ fi tamit benn financement bu tolloog ci dix millions cinq cent ay ay ndaw programme xëyu ndaw ñi dafa am enveloppe un milliard cinq cent boo xamante ni fii ak fin d'année bi wax nañu ko def ci quarante six département Sénégal yëpp ci pôle emploi tey jii nag ci région Tambacounda yi am nañu enveloppe cent cinquante millions boo xamante ni jagleel nañ ko ndaw yi c'est trois cent bénéficiaires yoo xamante ni ci autonomisation ci xayma euh, bis bu njëkk bi li ngeen jot a génn ci ci ci financement lépp lépp boo ko tënkee ñaata lay nekk boo xoolee boo ñu boolee yëpp tey ji li ngi toll ci six mu ngoog keneen euh, ku nekk ci tournée foofu ca Matam di euh, maître Malick Sall xam ngeen nekkoon na fi ministre de la justice léegi moom mooy secrétaire général COS Petrogaz mun nag indi ay leeral dalal xel daal népp lu jëm ci e, leeral yëf yi ba ñu ànd ak i garantie ci luy jóge ci suuf si wala pétrole ak gaz mu ànd ak fii ci Sénégal loole la moom mi di maître Malick Sall daal di xamle ma nga ci tournée politique foofee ca région bu Tambacounda léeg-léeg am matamali bandel ñang transparence ak jaar yoon lépp lu luy jëm ci wàllu marché ak contra pétrole ak gazu Sénégal bi maître Malick Sall mu ngi dalal xel waa Sénégal gannaaw bañ ko tabbee ci bopp kuréel gi di COS-Pétrogaz ki fi ne woon jëwriñ gi yore wàllum justice mu ngi woon ci tournée fii ci diwaanu Matam maître Malick Sall nag nuroo woon ak sapeur pompier ngir xam ni dañoo mer depuis biñ ko génne ci biir gouvernement bi ki fi newoon jëwriñ xamle ni li ko yëkkati jamono yi moo di ngir fexe ba Macky Sall tàbbi ci ab beneen mandat ci atum premier bi mooy que yow avocat international nga avocat d'affaires nga ce qui fait mun nga négocier tam nga ko kenn du la njuuj njaaj te mun nga vérifier contrat yi xam ne suñu intérêt Sénégal kenn du ko marchandé deuxième mooy que am naa confiance yow 100 pour cent politique parce que dafa xam ne yéen dañ ko mos a bu mu tàngee tàngee tàngee 2010 a fi nekkoon 2019 gunge ko dama bëgg lu ñu defoon ñaan ñett ñu def ko 10 en tout cas man pare naa ci loolu te ci loolu laa leen invité léegi nag am nañu en plus seen taxawaay dana gën yomb parce que lu amoon 2012 mooy léegi xam nga 2012 ci élection présidentielle ñii bu ñu jógee rek dañuy jóg dañuy bëgg mu bañ am benn problème pour que suñu candidat Macky Sall jàll au premier doon amee ca Ciloñ mu jaari itam gën a jàppale maire bi dëkk ba bu bees boobee nga xam ni ci liste parallèle la ko jàppale woon ba mu gagné élection locale yooyu le mu nekkoon sa naataango yi Bandel ñaa fii ci doonu maatam pour RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Ousmane Sonko ne li waral mu daal di tànn concert casserole wala tëggay euh, ci na ki bool fanweeri fan ak benn ci weer wi ñu ne. ci jamono ji nga xam ne président de mu ngi waxtaan ak doomu sénégalais yi mu ci indee leeral moom Ousmane Sonko jiite Pastef dafa ne daal euh, amul benn njëriñ ñu déglu koo xam ne joxul cër benn sénégalais Ousmane Sonko ni ki démb ci ngoon la doon yëkkati yu lekkat ñu déglu ko. li ñuy def 31 décembre bu ko def diggante vingt ba ba vingt heures trente léeg ñuy def noonu muy concert de casserole askan wi mooy wax ci datu républicaine ak président la république ne ko kontaanuñu ci ni ngay ni ngay doxalee réew mi te dañoo bëgg mu jeex fi lekk askan wi amul possibilité di def loolu li fi nekk du fi jóge looloo tax ñu choisir date boobu kenn gënuñoo nekk républicain ndax li ñuy xeex xeexuñu ko ngir suñu bopp de république moo tax ñu koy xeex république moo araamal ñu luubal alal réew mi république moo araamal ñu gannaaw bu ñu luubalee alal réew mi ñu ne dara du ci tegu kon république boobu mooy wax ak président Macky Sall du Ousmane Sonko du du du benn leader politique du benn leader société civile waaye askan wi république bi mooy wax ak Macky Sall. des ba tey ci opposition bi ak ñi di waa Yewwi Askan Wi ca Touba tontu nañu kii di Cheikh Abdou Bara Dolly gannaaw dal ba mu ne concert kasxol boobee mbiru xale la ñoom li ñu bëgg mooy moom mi di Cheikh Abdou Bara Dolly bàyyi yi muy def singali bi dafa ëpp lool ci kii di Ousmane Sonko ñu sax. jàpp ne moom it di député bii di euh, Cheikh Abdou Bara Dolly li mu war a def mooy dem di fekkee ay plénière ci assemblée nationale Papa Balla Gaye moo ñu koy leeral. tontu du forox tax na waa Pastef diwaanu Touba daal di yëkkati kàddu daal di tontu ki nga xamante ne moo Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly gannaaw ba mu génnee joxoñ baaraam Ousmane Sonko ak ay ndawam ci ay saaga ak ñàkk teggin yoo xam ne dañ koy def kilifa diine yi ak ñi nga xam ne ñoo woy politique yi lay Cheikh Thioro Mbacké nekk député yeewu ci assemblée nationale di tontu ci kàddu yi lay. peine perdue ko Babacar Sarr wax ñu ko ëpp crédibilité def nañ ko jàllul ñu def nañ ko jàllul ñu ko ëpp dayoo ci dëkk bi def nañ ko jàllul leneen lu mu ci dolli muy xam le ne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly daanaka moom mi moo taxawalul ñi nga xamante ne ñooy askanu Touba ci assemblée nationale ndax nekkewu fa lu dul tukki atal li koy firndeel mooy plénière yi sax lu ci bari teewewu ko ndax tukki di seetaani football ak lu ni mel assemblée nationale kenn lañu yónni woon Qatar mooy Omar Sy moo commission sport ak CNES bokk yeewi askan moom la assemblée nationale yónni moom la jox ordre de du génn benn ordre de mission boo xamante ni assemblée nationale ñoo ko yónni Qatar loolu du ko génn. jamono ji nga xam ne ñu ngi waajal concert de casserole yi lée ñoom ñuy xamle ne kii di Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly loolee concerné wu ko. concert de casserole bi waaye yi nañ warmal dëkk bu sell bi lépp luy xeetu yëngu-yëngal xam ne nga am yëg-yëgu def ko nga paas ñëw Mbàkke defee si ko si député yu wàllu yi nekk ci diwaanu Touba terewul nag ñu ngi artu ki nga xamante ne mooy Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly ngir mu bàyyi seen leader bi nga xamante ne ñaawteef gu nekk mu ngi ko koy teg ngir fexe di ko diaboliser ngir yàq deram fileeg élection yu 2024 yii lee Papa Balla Gueye Touba rajo Futur Média tey la am at ba ñu tegee saxaar si nga xam ne courant moo koy dawal ji teer bi mu tàmbalee dox ba doomu Sénégal di ko jëfandikoo ñi nag di dawal taxi ne ñoom moom ñoom la gën a sonal ñu jàpp ne nag boobu le trafic du train express régional dafa dal di wàññi bu baax a baax seen activité ñu nag jàpp ne nguur gi war na leen bàyyi xel reportage ca Sandaga Modou xamata Diallo point Sandaga xumb lool ci kanamu boutique bi jàkkaarloo gaaru taxi yi di dem banlieue bi benn waay taxaw ci kanamu taxi wam moom nanguwul joxe tuuram waaye xamal nañu jafe-jafe yu ko teer bi jural ci liggéeyam. impacté na Sénégal gépp la impacté ci wàllu transport ñun arrangé bu fekkee pneu yu peer la. yàlla na kërëwe moom TER parce que TER moom tubaab la arrangé arrangé wul sénégalais yi parce que TER bis boo xamante te ñun ñu amakas néew suñu Toyota yi ñu amakas néew ci la ñuy jox keccax kër ga ci la gars yi di coxé TER bi daa am coxé ñun coxeur yi duñu faale duñu duñu ànd ak TER bi TER bi amul coxé mu bokk gis-gis ak Ibra Diagne mii di sàkku état bi mu organiser waat li nga xamante ne mooy secteur transport bi. na suñu liggéey c'est parce nit ki TER bi ne client bi la moom am na lu mu yàq suñu liggéey yàq na si transport bi ñuy dund président Macky Sall moo ñu moo moo ñu gaaree c'est parce que comme ñun ay ñun ay ay Sénégalais ay Sénégalais ay citoyens lañ si doomu réew bi lañ kon normalement daf ñoo war a encadrer suñu oto yi dañoo màggat amuñu ay doole ñu renouveler oto yi parking oto oto oto bu bees état bees bu ñu sukkandikoo ci jaañ dem di taj si ma nee na métier bu nekk am na concurrence waaye nag train bi mënu leen tere def seen liggéey nu mu war pare. ci dara lii sama wërsëg suba su xëyee maa ngi am jaam na gëm yàlla gëm ni teer bi ba mu fi nekkagul yaa ngi doon am wërsëg te yaa ngi wér teer bi ñëw na yaa ngi am lii sa wërsëg na ñëpp gëm yàlla kenn mën xañ kenn suñu borom rek a mën teer bi nan xottiwaat beneen mu jaar géej gi dem géejaway wala nu xotti mu dem ci fu ne na juróom benn at mi ngi nii teer bi di daw ndakaaru ak banlieue bi bu dee ñenn ñi gis nañ ci seen bopp taximaan yi ñu ngi jooytu ndax ni teer bi wàññee seen liggéey. teer amul ay ay pëna yu crevé laata ñuy euh, egg ak yow euh, li nag di ab ndaje bu waram te ci suba foofee euh, di journée bu ay ARTP fii dak 2022. ki ko jiite di DG Abdoulaye Ndiaye table ronde nag diggante 10 heures ak 13 heures stand ART pavillon Sénégal la yam Euh, table euh, ronde bu njëkk bi nag euh, dinañ ci waxtaanee yegg sip 5G fii ci Sénégal lan lay jur waaye tamit ñaareelu table ronde ba mu ngi waxtaanee ci lu jëm ci digitalisation service postaux ak développement bu e-commerce kon tey lay am foofee ca CICES ci foire ba. Youssouf Boña maa ngi leen nuyu. di la fay Seydou di nuyu ñëpp. <laughs> waa dafa ñaan teer euh, pën yi daal di crevé <laughs> waaye teer ndax am na ay pën yu koy dawal. <laughs> ñu waxtaanee Ligue 1 fii ci Sénégal résultat yi démb. résultat yi kon bokk na li ci gën a fës mooy classico bu football bu Sénégal diggante Casa Sport ak Jaraaf waa Casa Sport ñoo mujj am ndam benn bal ci dara Jean Coté Gomis nekk cadet boo xamante ne dañ ko surclassé moo dugal seen bii 66e minute. Casa Sport nag euh, li mu bëgg ren mooy euh, fexe kon ba gagné match mi yëpp rawatina à domicile ñu déglu si entraîneur am di Anso Diadio. waaw lu ñu mën a jàpp d' abord match bi au départ li ci gënoon important du technique du tactique li ci gënoon important pour ñun dañu ne suñu kër ku fa ñëw dañ lay gagné ba tax na ñun bu ñuy amee match fii du ñu xool kan moo nekk suñu kanam. dañuy préparé pour jël trois points mais c'est vrai ci jeu gis nañu équipe bi premier mi-temps vraiment posé nañu ay problème lu ñu doon def mënuñu ko woon def mais après bu ñu duggee ci mi-temps bi boo waxtaan ak xale yi gis nañ am amélioration changement changement boobu nag bi ñu rectifier suñu position yi ak suñu jëfin tax na bu ñu am ascendance adversaire bi ba ñu jot a dugal donc loolu noonu lu ñuy lu ñuy saluer la parce que ñu ngi gis ni xale yi ñu ngi màgg parce que waxoon naa ko fii il y a quatre ans en dañuy def ay résultats te dañuy permettre population Casamance ñu kontaan ñu dégg parce que football gagné mooy tax population bi nekk seen ginnaaw. Casa Sport daan jaraaf entraîneur jaraaf jàpp ni kon gone mi amoon nañu taxawaay bu baax boo xamante ni sax euh, méritoon nañu am ndam ci euh, match bi ñu déglu euh, Youssou Dabo. defet la bu xaw a yi euh, si euh, euh, par rapport ak match bi nga xamante ni ñun moom la ñu def donc premier temps surtout wax naa woon xale yi parce que Casa dafa nekk équipe boo xamante ni dafa bëgg di jël bal bi à partir de ginnaaw di def ay passes yu gàtt di redoubler idée bi moo doon en tout cas si seen deux premiers tiers yi dans les intervalles couper des relations entre joueur ak joueur je pense qu'en premier temps on l'a bien fait Euh, couper relation entre défense centrale latérale obliger leen ñu jouer bu gudd on sait que c'est difficile euh, de jouer comme ça boo ko tàmmulee ce qui fait que en premier temps ñu gis déchet technique yu bari ci seen malheureusement dans les transitions euh, ñu manqué un peu de lucidité dans le dernier geste kooku di Youssou Dabo doon jàngat kon defet bi ñu am foofule ca Ziguinchor ngaland Stade Ngalandou Diouf Tëngëj FC euh, Guédiawaye football club moo ko fekki daan ko ñaari bal ci dara Ismaïla Cissé ak Assane Diatta ñoo dugal bi waa Guédiawaye mu doon taxawaay bu baax bu seen entraîneur di rafetlu Souleymane Diallo leewu yoon xale yi si euh, effort bu ñu fourni parce que bu ñu doon ñëw dañoo xaymoon match bi si ñetti fànn première fànn bi mooy ñu mën a leen jël si euh, kaw euh, parce que peut-être ñoom du ñu xaar stratégie boobu si ñoom étant donné que ñu ñoo génn ma ne xale nañ leen bett si seen zone de confort xale yi def ko mais malheureusement dañ foog nañ dina sanctionné par par but mais malheureusement def antuwul mais xale yi ne ma noonu nañ insister si loolu xool parce que y de la place mu yàlla def ñu dugal euh, ñaar bi mais man euh, jàngat bu am solo si deuxième période bi lay lay faral euh, laa koy accentuer parce que souvent équipe bu mënee deux bi à zéro day am benn relâchement si xale yi mais tey au contraire j'ai vu des ay xale yoo xam ne ils étaient très endurants dans les consignes ils étaient très très très man surtout boobu moo ma si euh, moo ma si nekk donte dugal ñu but donte parce que bu ñu doon ñëw xamal naa leen effectivement bu ñu jëlee benn poñ c'est excellent bu ñu jëlee benn poñ euh, duñ ko craché mais quand on peut prendre les trois xale def nañ ko ñu jël maa ngi leen si sant di leen euh, gën kooku di euh, Souleymane jallo euh, di entraîneur bu Guédiawaye bi daan Teungueth FC Stade Fodé Wade jàmbaar moo daan Snaps ñeenti bal ci dara Maley jaañ kon euh, dugal ci ñaari but US Gorée Génération Foot 0-0 Stade Ibrahima booy Dakar Sacré-Cœur moo daan kon AS Douanes ñetti bal ci dara Guédiawaye moo jiitu am 20 points plus 8 Casa deuxième 20 points plus 4 Njàmbaar mooy troisième am 18 points AS Douane ak SNEPS euh, su fi fi yemoon kon dañuy wàcc Ligue 2 Ligue 2 boobu lee ñaari match lañ doon amal démb wari daan moo fekki Port daan ko benn bal ci dara ñi di waa Oslo fekk Demba Diop FC daan ko benn bal ci euh, dara. Mm, waaw ñu waxtaanee lii di boxing euh, mm. tey mm-hmm. foofu ci Angleterre nag gannaaw nawel dañu yeew amal ay match yu neex te dañ koy wéyal. ñu wéyal 17e journée bi tey bu 17h30 jotee Chelsea bu Kalidou Koulibaly ak Edouard Mendy ñooy daje ak Bournemouth. Manchester United Nottingham Forest bu Cheikhou Kouyaté match bi kon 20h lay doon jàppale ni démb Brentford ak Tottenham 2-2 Pape Matar Sarr moom mu yoon ci banc Tottenham Everton euh, euh, kii di Wolverhampton moo ko fekk daan ko ñaari bal ci benn Idrissa Gana Gueye euh, joué na ba 83e daal di génn Crystal Palace Fulham moo ko daan ñetti bal ci dara Leicester Newcastle daan ko 3-0 Southampton Brighton moo ko daan 3-1 3-1 tamit le Liverpool daan Aston Villa Arsenal daan West am ñetti bal ci benn Arsenal kon moo jiitu ju jiitu ëppale juróom-ñaari poñ deuxième bi di Newcastle. waxtaanee léegi euh, lamb ji Seydou waaw ñu wax ak Boy Niang mi nga xam ne gën euh, lii di séance d'entraînement bi ah, open press bu Boy ñaam mi nga xamante ne kon day waajal euh, combat digganteem ak Balla Gaye 2 bi nag ñu koy amal di di premier janvier lay doon dimanche bi ñu jëm ba tax na kon Boy Niang daal di yëkkati kàddu ngir artu kon kii di Balla Gaye ñu déglu Boy Niang waaw da ne ki may ndaanaan la waaw ndaanaan bu dofee ndaanaan na koy faj Balla moom xam ne am na adversaire waaw am na na booy bu décidé bi laay walaay am na booy bu décidé bi laay walaay dañuy de dañuy jëflante bu baax a baax incha allahu rabbi boo ñaa dem wala day taxaw def lu may def nekkul yow laa koy wax nekkul presse bi laa koy wax loolu sama la comprendre mais lépp laay def nga xam ne moom lu mu indi fekk lu mu indi wul mi ngi fi incha allah amul en amul en lépp a a baax dina am kan mooy Boy Niang incha allah. ma ne comme maay xale kay oto combat bi kon dafa war a métti comme yaa ngi man maay xale combat bi dafa war a métti war a bëri quinze ba vingt minutes yoo xam dañuy xeex di bëri di nàcc di dem ardo di ñëw bu ko defee xam kan mooy xale ak kan mooy mag loolu moom bu yow mu wax dañuy xeex di bëri di gaañ di dem ñëw loolu moom day soof combat bi dafay métti parce que combat bu ñuy saasaaxee ay rëbb ku nekk dem ñibbi loolu dafa yomb combat président janvier la day métti day saf sap maa ngi moom histoire bi dafa gudd dara jotuma maa ngi sant yàlla bu baax a baax maa ngi sama rukk di liggéey ak sama staff nekk ci li ma war a nekk comme ni ñu koy waxee face à face démb bi nag li may njëkk a def mooy damay njëkk a jégalu moom du lamb jégalu promoteur jégalu ñëpp parce que ku xam Boy xam ne ku am respect ci promoteur la ku am respect ci doomu aadama la ku respecté contrat la waaye damaa génnoon balaa ma yegg si dégg naa sama adversaire ci la quitté ñu woo ma ne ma quitté na ma ne garaaw kon bàyyi ñibbi loolu rek moo tax heure la rek abal la Boy Niang Balla Gaye 2 kon Seydou le premier janvier incha allah mu ngoog jaajëf soo ak RFM kumba tàggoo nag yéen xibaar ñeel caade dañ ci ànd ak Fama John dal leen ak jàmm kii fi nekkoon ministre de la culture Mbagnick Ndiaye moom la ñu falaat ci bopp union association culturelle bii di Ndefleng équipe bu bees bi nekk nee na daañu indi yeneen i fem ngir mën a gën a ñoŋal cosaanu séeréer Aminata Goudiaby ci njëlbeen nag moom Mbagnick Ndiaye dafa rafetlu bilan bi nga xam ni moom la équipe bi génn def ndaxte nee na union des associations culturelles séeréer di Ndefleng ci diggante bi organisé na fii ay activités yu bëri ngir rek gën a suuxat yokk doole li nga xam ni moom moo di cosaanu séeréer d'accord ci rapport bi 234 délégués d'accord ba léegi. bureau bees bi nag li ci am solo. mooy xale yu ndaw yi bëri nañ ci. yoo xam ne yi ñoo ñëwal seen bopp bugg a bugg a bokkal seen bopp. muy donc la relève de Ndefleng est assurée. ki nga xam ne nag moom moo fi nekkoon ministre de la culture di Mbagnick Ndiaye di wax ne fi mu ne daañu tàmbaliwaat di def ay activités gannaaw ba nga xamee ni toog nañu daanaka ñaari at yoo xam ni defuñu gisuñu woon benn yëngu-yëngu wax na li ko waral tey itam ne def Ndefleng dana continuer di xeex rek ba jàmm sax dakk ca Casamance. le trois avril dinañ fexe ba def drapeau bi ñu doon def nga xam ne séeréer si pour dugg 4 avril fête suñu indépendance séeréer si yëpp a doon daje def tournoi de lutte traditionnelle. dinañ def soirée culturel Sorano nga xam ne artistes séeréer yëpp ñooy daje autour de la communauté séeréer les journées culturelles séeréer culturelles boole séeréer si yëpp muy noon saafen ndut palor sin Shinganum Hall ñoo ñëpp ñu boole leen wane activité culturelle bu assemblée générale bi nag ci Fatick lañ ko defee waaye nag séeréer yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee fépp ci Sénégal ñëw ñu fekke ko weene fop in ngatoyo section sénégalaise bu communauté africaine et culturelle mooy delloo njukkool professeur Joseph Kizerbo di euh, historien nekkit homme politique doomu Burkina Faso Joseph Kizerbo defoon na ay études yu am solo ànd ceeg Cheikh Anta Diop eh, ci histoire Afrique xew-xew bi dina am ëllëg ca musée des civilisations noires li mu nekkoon seen chronique culture dig daje ëllëg ak jàmm. Touba Darou Salam Karo. Soumari.com. Gambrendi et Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed jërë ngeen jëf bu dee dañ na gan du yeewi bay gan gi gana waa Tamba moom dafa yóbbaale ay bëyam gan googee la Sénégal mi ngi ñuy xamal ne mooy président Macky Sall moom njiit réew mi ma nga ca Tamba démb ci ngoon ca la fa yegg war fa amal nganuk ñeenti fan journal bii di las di lu si ak ñun ci teeru bu rëy ba ñu ko fa teeru mbooloo mu bari te takku yéenekaay bi nee nañu ñoo génnoon démb ca mbeddi Tambacounda ya ngir teeru teextu tatagal Macky Sall Le bu rëy bi président mi ngi ñuy waxit ni jàngatee tànki Macky Sall yee ca Tambacounda li mu ci gis moo di Macky tàmbali na ab campagne am ci ndigal boobe l'observateur dolli ñu ci ne ndajem conseil des ministres di ñëw ca Tamba fa la koy defee conseil des ministres décentralisé ba ñu fa defoon atum 2013 ak Aïssata Tall Sall àdduna ci troisième candidature bu Macky Sall bi ñuy waxtaanee ci réew mi journal La Tribune nañu la mu ci wax moom ministre affaires étrangères Aïssata Tall Sall ci émission Grand Jury bu RFM nee na bu ñu sukkandikoo ci constitution bu Sénégal président Macky am na sañ-sañu doon candidat ñaari mandat yi constitution bi wax bu ñu koy wàññi Macky ci benn mandat ci la toll ndax mandat bu njëkk bu juróom-ñaari at bi ba mu ko bëggee wàññi def ko juróomi at conseil constitutionnel dana ko munta nekk ndax constitution bi juróom-ñaari at la la fal faaw bi nga di mën di doxal constitution bu bi combat bi xëy na mi ngi ci ndax politiquement wala ndax moralement Macky Sall mën naa présenté wu Walf Quotidien nañu avocat bi ministre bi di maître Aïssata Tall Sall wali dina ci grand jury ci RFM troisième candidature bu Macky Sall journal bi nañu waaye docteur El Hadji Abdourahmane Diouf borom parti awale bàyyiwu ko ca Aïssata Tall Sall dafa daaneelu kàddoom rek docteur Abdourahmane Diouf defub Twitter ngir recadrer ko rapport bu Cour des comptes bi lëmbi réew xaalis bu ab responsable politique APR bu nekk ca Yoff ngi indi ci suur soit yi wane ne ministre de la ba woon di Abdoulaye Diouf Sarr amul dara lu ko waa cour des tuumaal ci yorin wu bon ci xaalisu fond force covid mu ne ci rapport boobee toll ci ñaari téeméeri page yu manqué ñaar fukk maanaam 180 ñaar fukki recommandation ak ñeent rek ci waa cour des comptes def ministère de la santé ak action sociale te ci recommandation yi amul benn yoon bu cour des comptes waxee ak luubal wala jalgati mbaa détournement gu mu ne ay bi seetal ay collaborateurs am seetal fournisseurs yi ministère contre yi Abdoulaye Diouf ay noonam ak i bañam ñoo bëgg jaaree ci rapport bi di seet nu ñu mën tëggee Diouf Sarr ak président Macky di seet nu ñu leen mën a jaxase waaye ñi koy jéem nañu nuppul ndax li ñu bëgg du am ñu am tey ji xët mu njëkk soleil national njiital église bi ci réew mi monseigneur benjamin ndiaye ci kàddu yi mu yëkkati guddik noël journal bi mi ngi ñuy wax ne waxi jàmm fësoon na ca lool moom monseigneur benjamin ndiaye soleil national nee nañu sàkku na ci askan wi ñuy moytu fitna tey saxal jàmm ci réew mi jàmmi réew mi te journal l'info mi ngi ñuy wax ne fësoon na lool ci ziara annuelle bu famille omarienne gi woon keroog ajjuma ak samedi ca wakam cheikh oumar anne ministre éducation a baax jàmm ak dal rawatina ci jamono ji ñuy séentoo ci Sénégal pétrole ak gaz kunkande borom damay xaar géej gi bu moytuwul yoon dina xaar lu bonam yëral xët mu njëkku libération moom Amadou Julde Diallo ñu gën koo xam ci kunkande jàpp nañu ko démb waa section recherche bu kees ñoo ko jàpp ca sali ga ca mbuur fa lañu ko jàppe moom ak beneen waay bu ñaan Ibrahima Niass ñu gën koo xam ci sant yàlla yéenekaay bi nee nañu tey jii ca lañ leen di yóbbu ca kanamu procureur ba lan la ñu def ñoom ñaar ba tax yoon teg leen loxo libération nañu moo di dafa am benn waay nekk bitim waa joojee moo yëkkati juróom-ñaari million jox ko Ibrahima Niass ngir mu wutal ko ci terrain Ibrahima Niass ñu naan ko sant yàlla ne xaalis ba kunkande la ko jox ndax kunkande dane ko boo ma joxee 7 millions yi ma soppi la ko defal la ko 700 millions Touba Darou Salam Karo Soumari.com Gambrendi et la beauty Malaysia Yumu Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jaajëf Modou Mouhamed Ndiaye mbokk jàngeen jëf foofu lañ ko yemale mu nekkoon Seydou Nourou Ba ci micro bi Abdoulaye Diop moo farewoon ci machine bi Yacine Pouy ci digital bi ci kanam incha allah pencu asalaamaaleykum